am naa mbégte amaat ak yow jotaay ma baal rek nga def mbokk internet yi. di wax aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahim di sant yàlla rek. sant yàlla bi may sant yàlla sama borom xam naa fu mu commencé waaye mënu maa xam fu mu yem di julli ki sangu sang yi. Mhm. muy Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba. gën a yeesal sama njébbal. Mhm. ah di ziare eh, Seydi Mouhamed Moustapha Sy. Mhm. ibnu Cheikh Tidiane Sy Al ibnu sëñ Babacar Sy ibnu Seydil Hadj Malick di la ziar di la wax ne sa ñaan mi nga yegg si bu baax a baax a baax maa ngi lay béggee bu baax di béggee àdduna bi yëpp. Mhm. waaw di leen jaale li ñu bokk. waaw mhm. ah, ok. Mhm. li ñu jaale li ñu bokk ci li ñu bokk loolu rek yaay la ñuy duggaat tuuti waxtaan ki ndax it keroog seqoon nañ ak yow kàddu mu doon kàddu yu am solo yoo xamante ne askan bi yëpp rafet loolu lañ ko ndax it loolu rek la ñuy wax doomu aadama bu génnee àdduna nañu xool lu baax ak lu rafet lañ ñu ko xamal ñu seede ko. keroog mama nga dem ba sa kër doom jaale ko bokk ak moom naqar mi Wally Ballago Seck keroog yaay. waaw xam nga keroog nee naa leen bi nga ñëwee ki ne dafa gaañu rek daanaka dama feebar. Mhm. keroog nee naa leen ça va pas. Mhm. keroog sama yaram bi dafa diis. wallaay dama feebar sax affaire bi jox ma métti. métti mhm. na ma diis na ci man ma ñëwante nag Wally Seck lool ñëwante ko lool sax. Mm-hmm. waaw ah alhamdulilahi rabil alamin xam nga maam ale sama doom la boo xam ne lu ci nekk rek dama koy woo laaj ko moo ma ne tey rekk lañ koy yemale mm-hmm. ma ne a ah, kon xaaral ma dem fa daal di dem buuxante ci biir góor ñi ci góor mm-hmm. ñi laa jaar ci biir ñu ma gis bugaan rek lang ci ginnaaw bugaan tànc nañ ma nag ba may ba may ba may bëgga dee waaye sama doom jaral na ma ko ci rangu góor ñi laa dugg di ziar Alioune sekk bu baax a baax di ko ñaanal gudd fan ak wér Seck geste bu mu def rafet na trop dafa may gis rek ne eh bàyyi leen ko mu ñëw taxaw fii macha allah dafa jóg ma ma ma di ko rafetlu lool lool lool sax Seck. Mm. nga ne yàlla yokk sa jaam ah dem naa ba gis sama doom jox naa ko loxo nee naa ko kenn yéen a lii Seck mu jàkkaarloog man yow di reetaan mm. loolu jaaxal na ma de. Mm-hmm. maa ngi doo gis Wally Seck jëxërën hmm? maa ngi doo gis Wally Seck jëxërën nii ba ma koy gis boobul papaam dafa amoon jafe-jafe 100 nekkoon 100 mètres ma dem seeti papaam ci laa gisoon Wally hmm. booba ba tey maa ngi doog gis Wally jëxërën nii mu nekk ci man lu foor keroog samara bi dafa ñëw keroog dama aalu dugg bi dugg bi dama ànd ak àll génn bi dama ànd ak àll journaliste yi ma topp ma ne waxuma du ma wax ah di ko ko jaale nag. Mhm. di ko jaale bu baax bravo mon fils. Mhm. jàmbaar la. keroog taxaw na xool na nit ñi barakallahu ak yër na nit ñi gisuma mu jooy gisuma mu def dara Aïcha Rasoul toog jooyul euh, euh, kii Alioune Seck toog ça alhamdulilah alhamdulilah. vraiment am naa ci ñoom yërmande bu baax. ma di leen wax ni seen yaay laa maa ngi nii. seen yaay laa jaaga demul am nañu ay yaay. jaaga wala yi la rek boo xam ne dafa ñëwoon ci ñoom nekk passager rek waaw missionnaire la woon rek ku xool jaaga xam ne kii nit ku baax la nañu sant yàlla ba ñu amee yaay ju mel noonu nga xam ne jigéen ñi sax dañ ne dañoo bokk ci sàppe julli bi mm-hmm. maanaam mu nekk lu diis man ñeewante naa ko lool sax waaye ni mu def tamit kontaan naa ci wonewul benn yoon kii oyoful daal benn yoon wane na njàmbaar ba dugal na yaayam barakallahu tudd na fa yàlla alhamdulilah dëkk ko na wax rek mu gën a góorlu sekk bravo bravo moom fils de valeur. Mm-hmm. ah bravo mon fils de cœur vraiment wallahi bëgg naa ko. Mm-hmm. billahi wallahi watalahi bëgg naa Wally Seck. Mm-hmm. da nag génn ci làmmiñ teg ci bët nekk ci biir xol bee ko gën. yàlla def na Wally sama biir xol bi. maa ngi ànd ak moom naqar bi maa ngi koy masawu bu baax a baax a baax a baax. yàlla may ko xolu muñ te may ko kàttan bu mu uufe rakkam yooyu ndax tey mooy bàyyi mooy yaay. Mm-hmm. waaw ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax baax vraiment. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu ngi koy ñaanal bu baax euh, fa mu jugee waaye dafa am mbir yoo xamante ne nag yaay. dañu bëgg tamit pot euh, porte-voix yu mel ni yéen ngeen xaw ci communiquer tuuti ndax it lu mel ni dëj naqar tiis ñu am yenn mbir yoo xamante ne askan dañ koy faral di seetlu di ko ci gis ñu bëri nag neexu leen yaay dem ba ci armeer di sàcc wala ñëw ba ci dëj. nit ñi nekk ci tiis ak naqar dafay woyaan ngir loo fa am ngir dem euh, yooyu noonu léegi di am ci dëj yi nag nga ko gisee. xam nga lu may naqarlu lu ma njëkk a naqarlu mooy journaliste yi nga xam ne bu dëj amee rek. Mhm. ñu dem di filmer néew bi. Mhm. kuñ ci filmer woon sa néewu ndey du la neex. bokkul ci lu ñu rafetlu. Mhm. vraiment. loolu war nañ ci jóg maa ngi woo président de la république. billahi lazi laa ilaha illa huwa lu ma métti la nag man mhm. kenn yónniwu ma ndax génn ma jàkkaarloo kenn ba ma yónni kenn yónniwu ma mais dafa nekk loo xam ne nga am néew sa waajur génn àddina journaliste ba ñëw tiim néew ba fañ ko tëral génn ko te loo xas a génn ci internet illaa yow mi yóbbu asuun du dañ mukk ci àddina fu ñuy jullee ñu filmer soo moytuwul sax fu ñu koy dugalee di ko jébbal boromam di ko dugal ci biir pax mi dañ koy filmer man loolu lu ma lu ma naqari la damaa xamul ku ko njëkk xewal waaye du rafet mën nañoo bàyyi bu bu nit kilifaam génne àddina mën nañoo toog ci biir kër gi ba ñu yóbbu ko ba ñëw léegi ñuy jaale ñu filmer leen vraiment man kenn yónnee ma li ma naqari laa wax. <laughs> mën nañoo bàyyi ba ñu dem ba jëli seen néew ba ñëw ba dem yóbbu ci boroomam ba ñëw ci biir kër gi ñu xaar leen ci kër gi ñi ñii kat dem nañ ñu denc nañ ko ba ñëw ñuy jaala si doo gisee dëj bi nangam nangam nga wax na ko yàlla xare àjjana na àllaaxiram gën àddinaam man loolu laa gënoon rafetlu. Mhm. mais nit yaayam gën àddina nga topp ko tiim néew ba tiim néew ba. di ko filmer. luñ luñ ci def rek ñu filmer ko loolu laa njëkk a naqarlu ñi nga xam ne nag dañuy dem ci ay déggu jàmbur mhm. di di wayaat ñooñu ñu ñàkk jom ngeen yéen mhm. xanaa yéen du ngeen deele woyaan ngénte doy na ci mhm. séet doy na ci ay jàng doy na ci waaye ku génn àddina ay doomam di jooy nga topp ko di yalwaan yalwaan sax dafa rafet di woyaan pour lan non Sénégal mi ngi commencé yàqu Sénégal kenn xàmmeetul dëj ak ngénte mhm. ab dëj ku ci mën ne ñàkk jom mhm. war a jaale ki génni la àddina ñëw masawu ko dëfal ko nga ñëw di ko tàllal loxo loolu lu xew lan la c'est la fin du monde ou mhm. man ànduma ci d'accordu ma ci sàcc gi nag yàlla moo leen bi ne ñàkk jom doon ay xaj des ñoo xam ne du ñu tekki ba ilaa yow mi yubaasuun ñoo gën a bon ci àddina bi bañ a liggéey comme seeni moroom nekk ay góor ne léng ak seeni bagaas yu rëy mën na xaar ba nit gaañu njul dugg ci biir armeel yi di taf fii la ñuy toroxe avant ñuy dem nga gis nit torox ba yelwaan nekk mag nekk ci mbedd mi boo xoolee fa mu jaar nga xam ne daraan def lu bon te am na ñoo xam ne kenn du leen sàcc. Mm-hmm. ku weddi laajal sàcc ba ubboon oto ba këf sama sama iPhone la fanaanul ci jàmm yenduwul ci jàmm man mii sax fekk naa ko police caaro yi mbéj ko mbéj moo xam ne mënatuma ko te buñ ma bàyyi woon foo mu toog dinaa ko dóor. Mm-hmm. parce que sàcc ku am valeur doo sàcc. Mm-hmm. ku diñ doo sàcc. dafa am loo xam ne dafa ñaaw surtout ku deele nga ne yaa ngi dem ci rob bi te nga xam ne yàgg-yàgg di nga mel ni ku ñu tiim di ko rob ndax mi ngi doon dund koom yow mi ngi doon lekk comme yow mi ngi doon naan koom yow nga war a ànd ak moom di laa ilaha illa allahu allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar ba ñu jébbal ko boromam nga taxaw ñaanal ko ay qul wallahu ñaanal ko yàlla ak ñam fa fekk ñëpp amoo dara looy def lu dul di làmb ay poos ci jàmbur kuñ ci jàpp nañ leen rey nañ leen rey gis nga ne waaj def morom jë ca say nañ nañ leen ko def sàcc moom jàtt yërëm mhm. sàcc ñàkk jom la nañ leen éliminer ñu génn ci société bi man de sàcc moom laa gën a bañ mhm. mën naa la may million lu ma am mhm. billaahi lazi laa ilaaha illa waaye boo ma sàccee juróomi dërëm yàlla nga ma man moom bëgguma loolu mës naa di liggéey mbindaan Kaolack sama kër tante laa nekkoon bala ama am borom kër dem di liggéey ñu may fay weer 5000 francs sunu patron da doon jàngale ca lycée ba prof la woon ñu toog mu jël ay màngoom dugal ci frigo bi sama benn morom bi daay ju jël màngo ba mu wàcc rek ubbi frigo bi daane kulan ma defe ne day foofu mu gën a dëgg ay saaga dama dem poñe ratt beneen bon bi ne ko maax yow fi nekk te man laaluma ko ku yaakaar ma sàcc la kooku sa ndey juddoogul asuma yow barakati laa ilaha la songu songu sama beneen moroomu bon bi di xeex ak moom ne ko yaa ko sàcc maa yow rek nekk ci kër gi yaay sunu patron moo ma yëkkati ne ma xam nañ ne yow jëloo ko man mbirum sàcc laa bañ ànduma ak sàcc. man mhm. bu ma du yoroon doomu sàcc nañ ko rey. Mhm. dafa am loo xam ne dafa ñaaw surtout ci dëj nañu xoolaat sunu bopp. Mhm. du ñàkk nga ànd ak nit ñu ne ana mu dee na te nga xam ne yow mii da ngay dee tôt ou tard da ngay dee. Mhm. nga war a sóor nga xam ne moom moom moo tëdd tey. Mhm. dafa nekkoon ci biir këram. Mhm. yore njabootam yàlla jël ko xam nga ne tôt ou yow moom tam noonu la yàlla di jëlee il faut être digne. il faut être digne. maa bëgg ko diñ man man maa bëgg ko am valeur daf may neex macha allah kàddu yooyu am na solo loolu xam naa aussi ci li ma fàtte woon rek moom it mu dugg ci direct ndax it léeg askan bi day bëri ñoo xamante ne dañu naan da ngeen di bàyyi seen di wax ay bu ñeneen waaye tey bëri na ñoo xamante ni tey ci presse bi amaana lu baax la ñu jublu waaye am na ñoo xamante ni dañoo nekk ci liggéey bi ngir yàq waaye nag comme ni ñu koy waxee yaay munoo bu liggéey amee rek wala dara bu xew noo xàmmee ñuy def lu bon ak lu baax waaye ñu ngi ñaan rek ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci presse bi yenn critique yi nga xamante ne saa sune rek ñu ngi koy teg seen kaw rawatina ci yenn événement yi nga xamante ne ay dëj ñu jàng ci te bàyyi xel kàddu yooyu nga xamante ne askan bi ñu koy. yàkkamtee am image rek. Mhm. ndax it tamit euh, yàkkamtee am ay vues. Mhm. bu mu tax ndey jàmbur dee wala bàyyi jàmbur dee nga jël sa caméra jël sa téléphone tim néew ba. Mhm. ku ko defoon sa ndey du la neex. rafetul rafetul non daf nañ bàyyi loolu waay. nañ bàyyi loolu. mais loolu noonu rafetul. bàyyil ba ñu jaal ba ñu yóbbu ko ba dénk ko boromam ba pare. ba ñëw ci kër gi. nga ne ko si gil ndigaale. macha allah ña nga xam ne ñoo ñëw jaale si. nga nga jël leen. Mm-hmm. ñu jox kàddu mais topp néew. bu ñu bañul nañ koy suule. Mm-hmm. nga génne ko. lu ne nga wax ko naan nangam lu ne nga bind ko. Mm-hmm. ndax bëgg ay vues. rafetul non métti na ma. Mhm. na ci présidence. macha allah mais xam naa ne euh, bu baax a baax a baax ñoom it dinañ ci bàyyi xel. ci critiques yi nga xamante ni sénégalais def nañ ko ci ñoom. pour beneen yoon lu mel nii bu amee ah maman muy kàddu yu am solo waaye ba tey dañ ci des rek ci lu mel noonu waaye gis dégg nañ euh, ay seetkat ñu génn def ay révélation euh, ba ma mën cee cité kenn koo xamante ne sénégalais ñu bëri dañoo dal ci kawam ci ni mu communiqué muy Yaay fal naka nga jàngitee communication ci mbir ma ko déggee lu ma naqari la ndax idaali idaali sama mbokk la ndax magam bu góor moo takk sama rak bu ma bokkal benn baay. Uh-huh. idaali laa gis mu def vidéo euh, di ci xas yaay faa nee na mm, moom moo ko moo ko jàppale ki nekk moom moo ko ko jox. Uh-huh. moo ko jëlee fi mu nekkoon idaali expliqué na ma lépp. Uh-huh. parce que idaali maa moom amul nëbboo. may ñaawlu wax yaay faal jooju. di ñaawlu li mu njëkk def nii fii. ragalul loolu jëruñu dara. xam nga nit ñi lu ñuy soxla ngay wax lu ñuy gis li mu wax ñaaw na ñaaw na te loolu dara amu ci kenn liggéeyul jaaga kenn liggéeyul coon sekk kenn liggéeyul moom moomi sekk gis nga ba yàlla di bind. Mm-hmm. man fekkewu ma beneen seetkat fekkewut nañ waxante dëgg yàlla buy jëlit ci kàttanam lay doon ak mbaaxam ak ci dooleem wane ne ma indi ma delloo ni mu jëlee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëlee ko Serigne Touba jëlee ko Cheikh Ahmad Tijani jëlee ko waa kër Seydina Muhammad noonu la jëlee Thione Seck. Mhm. noonu la jëlee Momi noonu la jëlee Jaaga ginnaaw Thione moo tàng rek. mais mais mais ni nga jaxtoo sànq ci presse bi ak ni mu la naqaree ak ni mu naqaree sénégalais yi loolu tamit bokk na ci lu naqari sénégalais yi. bien sûr man mii déggoo li ma déggoo li ma la wax xam nga bi ngeen fi ñëwee. Mhm. nee naa leen na sëriñ si moytu. Mhm. di wax yoo xam ne naka su dul noonu la. Mhm. fii kan lañ fi liggéey ba mu dee jaaga lu mu def nit. jaaga lan la def nit bañ koy liggéey ba muy dee jaaga deful kenn dara ci biir këram la nekk di dimbale ay nit. di def loo xam ne kenn du ko yëg. Mm-hmm. di dem ci néew yi di leen jël ay sàngaay li jël ñaari loxoom yu tedd yooyu di leen sang di leen tiim di leen ñaanal bañ jébbal leen seeni boroom. Mm-hmm. di dimbale ay nit dégg naa jimboori mu ne moo ko doon fayal luyaas. Mm-hmm. te mi ngi defal keneen ak keneen man nag yàlla def na jaaga yàlla def na musuma dem kër jaaga yàlla defal na ma loolu. waaye lu baax li muy def naw nañ ko ci. na mu toog séyal borom këram ba doomam yëpp sant sekk naw nañ ko ci jigéen ju baax la ci ibaadatullahi saalihin la bokk xayru umma uxrijat linnaasi ca la jaaga bokk muslimatin mu'minatin qaanitaatin taa'ibatin tayyibatin baarakallahu fiha yan ko yàlla xare ajjana yonent bi teelu ko boppam ñun loolu lañ koy ñaanal mm-hmm. waaye ab seetkat day mesurer ay parolam loolu même bu nekkoon gis na ko seet na ko gis ko sax am na loo xam ne yaay faal yow waroo koo def. léegi daa bëri comme ni nga ko. ndax yow yow Wally accueillir na la ki sa ci ci chaîne am. Mhm. ba woy la. Hmm. loolu rek waroon naa tax teranga boobu mu la defal ak sagal boobu mu la sagal waroon naa tax sax boo ko gisee sax doo ko wax tuub ko li nga wax tuub ko tuubal. nit ki dangay ngay amanteeg moom kóllëre goo xam ne man dam yu bari dama koy gis. Mm-hmm. nañu saraxe ci biir kër waali laa wax nañu rey def sarax gis naa jaaga de saxaar su bari tiim ko nañu saraxe nañu jël boori fir wi def ko taaj ko ci kër gi kenn ku nekk ñëw jël. nee naa Yacine mu ne ah ma ne ko ah lii ak lii ak lii dina xew bi mu amee ma daw na ko Yacine mu ne ah ma ne ko jaaga mu ne am yaay waxoon ko de pour pourtant maa fi dàq wax am naa sama chaîne YouTube sama la woowee nga ñëw. mais waxuma ko ndax rus naa waali dégg man Selbé Ndom rus naa waali dégg Selbé Ndom sama yaay nee na euh, sama yaay Selbé Ndom nee na nangam ak nangam lañ ma bindaloon loolu yëpp waxuma ko. lañ ma bindaloon waxuma ko te métti na ma ba tey. nit ki boo amee ak moom kóllëre soo amut ak moom kóllëre sax te mu lay déglu di la seet la ngay wax seggu ko. Thione mm-hmm. du liggéey du dañ koo liggéey ba mu faatu man Selbé maa ko wax. Mm-hmm. moomi du dañ koo liggéey ba mu faatu loolu amut jaaga ku ñuy gis ku lakkal nit ñi lañuy liggéey kuy tooñ nit la liggéey. ñooñu kenn liggéeyu leen man du ma bëgg promotion wala ma bëgg nit ñi ñëw ci man. Mhm. ba tax ma wax loo xam ne leer na ma leer yàlla ne Selma doom day kàcc li mu wax du dëgg du benn dëgg du benn dëgg nañu gëm yàlla wërsëg yàlla koy joxe temps yi da dégg may wax waxuma. Mhm. ndax maa teree liggéey. maa ngi liggéey. Mhm. kenn mayu ma juróomi dërëm ku dul Waly Seck mayu ma xar. ak sëñ Moustapha Sy musuma taxaw ci buntu néeg nit ne ko kaay may ma cent franc te doon jigéen aw ma yaay aw ma baay aw ma borom kër. léegi dafa dem ni muy dalee sit internet yi lay dalee ñenn ci sëriñ si di euh, xëccoo vue ku si bëri événement dangay bëgg a njëkk a génn ñu njëkk laa seetaan. ba lu la hmm. neex rek ngay wax. man taalibi sëñ Tuubaa laa gis nga mat yi. Mhm. ba tey maa ci waxagul. Mhm. amul journaliste bu ma woowut. Mhm. barke laa ilaaha illallah. te ñëpp man la xaar. te ñëpp man la ñuy xaar Selbé bu waxul rekk réew mi neexul su ma waxul ci làmb du neex su ma waxul match ci match du neex. Mm-hmm. daa tax may ratataat yi rek. pour lan lu ko fi jaar xaalis bi ngay am boo dee doo ko yóbbu nga teg ay doomu jàmbur naqar man de dem naa jaale ji man Selbé Ndom te Wally Seck dafa siggi moo ma jox loxo nii siggi xool ma ma téye loxo bi mu ree. ma ne ko sekk kenn yéen a wala lii te billahi lazi laa ilaha illa huwa bu ma sañoon jaaga day toog uuf waali di ànd ak moom buy joxe ay xar mu koy tagg xolom di sedd ba muy jooy mais kenn mënta xaj xëccoog borom bi yal na ko yàlla xare ajjana ji gën a kawe boole naa ak Seydina Mouhamed jaaga yal na la Seydina Mouhamed teeru waali nag dama kaa dénk allahu dénk ko Mouhamadou Rasulullah mm-hmm. dénk ko Cheikh Ahmada Tijani dégg ko cheikhul xadim mi nga xam ne damaa toog ci barabam jébbalu mu nangul ma sama taalibe dénk naa la yàlla sekk dénk la Seydina Muhammad mhm. moom mi nga xam ne mooy xayru xalqillah yal la yàlla sàmm sekk kenn yéenewu la lii ku sañoon da ngay toog ak bi nga dese mu lay uufal say doom kenn yéenewu ko ko nit ki avant de parler il faut ndey réfléchir hmm? bien sûr avant de parler laa wax il faut ndey réfléchir bu baax non lan mooy seetkat ñaan di mais seetkat mooy lan <laughs> seetkat mooy kan lan mooy seetkat eh ah, ñoom ñoo du xam ñoom ñooy xam lu nit mais seetkat mooy lan seet da koy judduwaale ñoom da léegi nga mën di wax nit ñi di kii teg seen bët place yàlla lañ toog de mais c'est pas bien hmm. nañ génn ki liggéey jaaga nañ ko génne nañ génne ki liggéey jaaga. Mm-hmm. nañ ko génne nañ ne diw moo ko liggéey. dañu mën a seet nañ génne ki liggéey jaaga. lan jàpp moo waral ñuy wax wax yi. non non non man xawma ko parce que man man du ma dundee noonu dafa am loo xam ne dafa ñaaw. yaay faal am na amitié ak Waly Seck indi nañ ko yëgal nañ ko ci kaw chaîne mu di ko woy man Waly woyu ma te bu nekkee défendre maa ko fi njëkk a défendre. seetkat buy teg tànkam ci suuf man sel maa fi njëkk a défendre bañ ko naan ñaare tur yi la ca match bu njëkk ba ñu perte. 2019 mm. fekk na may défendre Wally da na dégg Wally jël micro ne sama yaay Selbé dama koo jooy jooyu ma ko parce que jotagul man taalibi siñ Tuubaa am na nag loo xam ne boo ko doonee dangay moytu wax loo xam ne nit ñi dañu jàpp seeni gémmiñ li may gis billaahi wallahi watalaay su ma ko doon wax nit ñi dañ may daw. genre mel noonu ñu ngi yàq seen business wala ñu ngi yàq seen liggéey. non c'est pas bon day yàqal euh, ndax euh, am na lu bëri loo xam ne boo koy def dalay yàqal. ba làqal ñeneen ñoo bul euh, dalay jox promotion non day yàqal. Mhm. ba yàqal ñeneen ñi nga xam ne da ngeen di bokk métier mi. Mhm. kenn ku ne sa wërsëg ngay lekk mën ngaa def ndànk rek. du jar ngay. déguisé walla ngay def leneen il faut être naturel la kulli xaalin di ko am kon jarul yenn yi. Mm-hmm. lii mm-hmm. ñëpp ko ñaawlu. idaale ci boppam jot naa ko wax na ma li mu defal yaay faal lépp seetkat yi mu doon dimbale yëpp ñiy dóor. Mm. dégg naa lépp kenn ku nekk sa wërsëg ngay lekk. mais nga dal am na loo xam ne rafetul mais loolu du tax seetkat yëpp gis naa Pendo gisee wax na. mu ngi koy wax démb ci euh, benn vidéo moom ci seetkat bi ne woon mi ngi xaw ma ci kër gi xaw ma maa ngi koy gis démb. non. mu woo ko waa ji daw daw appel bi nangootu ko jël. xam nga man ku ma woo Selbé Ndom ma jël la. Mhm. 77 744 39 18 man Selbé Ndom ñaadama njéeme tungaan joomaay surtout buur beeg wàllu bi ku ma woo ma jël la 16 ans laa ci am 16 ans de carrière te ba tey su ma neexoon chaque jour ma recevoir fukki journaliste mhm. danga may woo ma gis sa appel du ma la jël maa ngi ci neen maa ngi sama liggéey yàlla ngi may teral mhm. du jar lu ñor nga wax événement yu fi xew yépp woowuma leen kaay leen ma wax ci xuloo Amady bajaan ak Adamo nangam dangeen ngeen dégg ma woo leen sama yoon nekku ci duma ci wax li ma war a wax rek laay wax. Mhm. faaw ñu seetaat defaraat taxawaay yaay faal loolu bu la dala ci mukk ci àddina. Mhm. seetal sa seet génnalal nit sarax ñaanalal nit loolu yow la mais ah del segg li ngay wax sa wax ji ñëpp mere nañ la ci. Mhm. xëy na soo waxutoon idaali du wax mukk lam la defal ak kam la booleel ku nekkoon ci moom mu boole ak yow mettitul na ko nag ndax idaali ku laal rek <laughs> laal nga idaali man mii ku laal waali laal nga ma yow ku laal waali laal na la eh, eh, eh, kii maam aale mii ku laal waali laal na ko yàlla moo séddale waali ci xolu nit ñi kon nay rafet waay mm-hmm. macha allah nay rafet maam mi kàddu yu am solo ci tàggatoo euh, xam naa moom laay tëjee rek ndax it euh, nag nga géegee tamit yaay kàddu keroog ba lii amee ñi ngi gis ay ceel ñëw ci rob beeg du ne dégg nañ ko. ah xam nga senegal moom Sénégal moom moo mel noonu rek kenn ku ne day wax ay ay feemam rek def say feem waaye yàlla noppi na. bu neexoon yàlla dina yónni malaaka yi ñu tiim leen te yéen ñi du ngeen ko gis. Mm-hmm. ñàkkul malaaka yu nekk ci seen biir di déglu ndax nee na nit bu génnee àddina ay malaaka dañuy ñëw toog ak nit ñi di déglu mm-hmm. seede yi ngeen koy seede moom la ñuy jël information yóbbul sunu borom dëgg la et fekk na suñu borom moom mi bind nitam moo ko gën a xam moo la gën a xam kon maanaam nay rafet nañ bàyyi jaaga mu tëdd ci jàmm. Mm-hmm. fekki na borom këram. Mm-hmm. nañ ko bàyyi mu tëdd yal nañu bàyyee njaboot gi fi des seeni wërsëg. Mm-hmm. yàlla bu ñu yóbbu dara ki seeni bàmmeel. amiin amiin muy e, Fatou Kiné Diouf na bàyyee ay doomam wërsëgam coon sekk na bàyyee ay doomam wërsëgam ci daraja Seydina Mohamed yàlla bu ñuy jàq yàlla bu ñu jaaxle man loolu rek laay wax maa ngi leen di ñaanal mm-hmm. li may wax nii ci waali nekkul ne damay taxaw buntu kër waali pour mu may mas benn juróomi junni wala ñaari junni mm-hmm. yaakaar naa ne kenn gisuma buntu kër waali mm-hmm. dëgg yàlla kon nañu ñaan yàlla senegal jàmm wàcc fi neexul neexul bu ñu yàq suñu der loo opté pour mu doon sa métier yàlla sédd la ko dangay seet li nga ciy wax am na loo xam ne dara jaru ko du ngeen mës a gis Selbé yore béjjën wala ay laar wala mu takk ay yëfu dofam jamais su nga sama kanam ji sama bët yii hmm. moom laay wone hmm. yàgg naa ci mbir mi fukki at hmm. ñoom ñëpp bi ñuy commencé fii lañ ma fekk te gis ñu ma débordé gis ñu ma def yëfi dof gis ñu ma wax yëfi dof yal na jàmm wàcc Sénégal. amiin amiin amiin waali yëlbul rek sekk yëlbul yëlbul yëlbul sekk yëlbul yëlbul barke Seydina Mohamed. Mhm. dinaa ko gis. waaw bu yi paase. ba mu delluwaat ci liggéeyam. waaw koy jege léegi. macha Seydina Mohamed. Mhm. dinaa koy jege bu baax a baax. Mhm. ndax moom loolu la soxla. dafay soxla ku ko jege. du soxla koo xam ne day wax loo xam ne da koy indil problème. Mm-hmm. maa ngi dégg ñu naan day bàyyi woy pour lan muy bàyyi woy mu fekk bàyyi ba di woy ñu ngéntee ko ci woy màgg ci woy mm. ba mu jur ay doom ci woy ñu ne day bàyyi woy ñoom xanaa duñu xool. nañuy xool bi seen bët yi di xool. jërëjëf dañuy <laughs> xool bu baax a baax a baax maam ci kàddu yi am na solo loolu jotaay bi nga xamante ne rek dañu koy seq ak moom saa su ne suñu yaay Selbé Ndom. Mhm. maman am naa mbégte ci ak yow jotaay. ma da nga joxe dernier kàddu rek ndax tey moom daa mel ni da ci émission bi. waaw waaw sañ nga sañ nga nag tey. bi loolu nga njëkk a xulóog man xanaa sañ see ko sañ see <laughs> waaw xam nga rek booy génn booy génn doomu aadama yi di la gis. Hmm. te di la seetaan di la bëgge yow it da nga leen di bégal. dëgg la dëgg la dëgg la. solo loo xam ne buñ la gisee duñ la yërëm. Mhm. dañ xam ne yow kat barakallahu yaa ngi liggéey. waaw ah yaa ngi sant yàlla ñoom seen xol mën a sedd. Mhm. du pour man. ndax bu man doo nga fekke woo ma gere faas bi gis nga nag ma fekke yow rek kay man <laughs> sant yàlla Sénégal nga respecté bu ma neex laa koy fekke <laughs> man yaay Fall la ah, aw ma problème yal na sunu borom dolli jàmm amiin amiin yokk xéewal ci barakati laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah encore di ñaanal Wally sekk di ko ñaan rek mhm. ñaan goo xam ne xam naa fu mu commencé waaye maa xam fu mu yem mhm. di leen bëggee bu baax di gërëm maam aale di la gërëm mhm. bu du aale du ma xam li xew damay bàyyi ba ca ëllëg sa te kon du ma fa fekk waali mhm. waaye maam Aali def ne ma demal mère mhm. demal waaw boo demul tey yëpp fi lay yem mhm. ah di ko gën a sant rek ndax moo tax ma gis sama ndoom jërëjëf di sant yàlla bu baax di bég bu baax macha allah maam mi kàddu yu am solo di kontaan bu baax a baax a baax ci jotaay bi ñu amat ak moom suñu yaay Selbé Ndom nii rek lañ koy defee ak yéen mbokk yi di lañ jox di daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf